mais ñooñu ñooñu li ñu wax noonu dëgg la du doomu Malicounda <laughs> ngee kii mu sotti fii ma doon wax démb ak barki démb. ngee Ngéeñeen ak Njamaan. Njamaan foofu itam coow laa nga fa. Mhm. te promoteur ba fa nekk di dugg ci suufu si Njamaan nee na liggéey na Malicounda te amul problème li ko jox suuf ci Malicounda ba mu fay liggéey bokk na ci li waa Malicounda di kaas ni jox bi du yoon. Malicounda ak Sandiara seen xeer woowu ñu tegoon noonu Maguette Sène ak Serigne Diop mi nekk ministre tey ci seen euh, xawma zone économique boobu ñu bëgg a taxawal noonu nga xam ne puusul paasul demul dikkul aussi ay hectares la gis nga nit ñi bañu ñu jël suuf si jox ko agronomie yi. Mm-hmm. pour ñu exploiter ko pour nit ñi liggéey fa pour ñu exploiter suuf si pour ñu am autosuffisance alimentaire pour ñu une souveraineté alimentaire Nous kenn bañu ko nous, Moussa. Mhm. li Les nous, te nous nit plus de 30 hectares de nguur joxu nous ko nous propre business Nous ñaar espace bu kenn bayul mais dañ ci boole waale suufu ay baykat ñett benen bi ci agronome de façon globale bu fekke da ngay def business agriculture ci la bok élevage ci la bok élevage ci la bok mais mënoo ñoo fekk ab forêt ndànd fay-fay bu nga xam ni ñi dëkk ci tundoo yëpp foofu lañu doon sàmmee nga ni fii comme kenn exploité wu ko nañ ma ko jox mais fa la ñuy sàmmee donc on l'exploite fa ñuy sàmmee kay ñu ngi koy exploité mais comme yow xamoo maîtriser woo gis nga muy aw ñuul rek nga ne nañ ko sàmm et puis ab àll mënut a toog te du am forêt ñoom Mamadou Tall ñoom sama gars yi di dund à l'étranger ñoom soxna tuuti xam nañu bu baax li ma wax France dëkk bu mu tuuti tuuti am na forêt ci biir dëkk bi wala benn espace vert boo xamante ni bii dañu fay def seen ay spectacle ci ngoon gi wala xale yi football mais fokk ñu aménager benn forêt boo xamante ni bii dañu fay def sport dañ fay def leneen c'est-à-dire forêt dañ ko fonk ci pays Europe yi mais noonu la mel ci pays naar yi naar dañuy créer sa ay forêt artificielle Afrique nak mom am forêt bu doy ni dañ koy jox béykat soble pour mu éliminer forêt bi yëpp mu dawal fa bill maase la àll bi yépp lu tolloog 20 kilomètres Baye Moussa non non 20 hectares bay Moussa 40 hectares kenn du ko yàq c'est-à-dire da ngay fekk fu bayable nga gis ni fii suuf si nangu na moo tax garab yi sax fi

nañu bàyyi forêt yi muy existe tey dëkk bu pratiquement amul place publique ça c'est à quoi Nous pratiquement fa place publique ba fa amoon nekk côté ndaje 3. Mhm. tabax ko ay kër te boo waxee maire bi maire na autorisation de construire équipe fi lotir ki fay tabax maire bi fa autorisation de construire amul ville am espace vert tey dakaar ni mu toll war na am forêt dex gi fi nekkoon ak néew di valoriser dakaar di protéger Dakar fàtt nañu ko mais ngir ni du ñu am inondation léegi foo dem coowal suuf la Malicounda li xale yi di wax noonu Malicounda demal tey aérodrome bu Malicounda nga xam ne ñun ñëpp bi ñuy fàttaliku dafa bokkoon ci suufu Saly mais bi ab Abdoulaye Wade ñëwee jàpp dëkk yi di ko dagg daggat mel ni ko ay morso jël Guéréo def ko commune. Mm-hmm. Euh, astafurlah Popenguine def ko commune. jël Sindia def ko commune jël somon def ko commune jël Ngaparou def ko commune te yooyu yëpp bokkoon ci benn commune bu Sindia benn commune nga def ko cinq communes. ñu ñëw Malicounda génne fi commune commune sali mm-hmm. léegi nag Saly ñu xoj ko parce que xamul fi fan la sali yamoon. ba ci croisement sel yi gi ngay taxaw di jël oto ci suuf Malicounda la bokk tabaxoon maa ngi maa ngi lay junj benn centre commercial bu ngande bu ñu fa tabax te puusul paasul mm-hmm. te bi ñu koy inauguré pompe lañ defoon màgg seen woo képp ku mu xam waykat yeeg ñaankat yi ñëpp dajaloo fa naan dañuy dooleel jigéen ñi dara doxu fa xam nga lu fa nekk ay yenn ay benn benn bunt yu ñu dajji guddi ay prostituées di fa dugg bu ko xamul ma wax ko ko sant commercial ba mm-hmm. loolu la aérodrome bu Salé.. nek fa xam nga wax tourisme wala ñuy wax euh, ki station balnéaire Saly motax mhm. mu ngi fa. mais aérodrome bi suuf Malicounda bok suuf Malicounda boobu mo wër faut dafa wër mbour daf ko wër dem Rof Pointe Sarène. promoteur bi am Rof continuer ci naan Malicounda aw ma problème mais am naa problème ngéeñeen alors que ñaari tool ñoo taxaloo parce que waf ak ngéeñeen ñoo taxaloo imagine Malicounda fi mu nekk fii boo génnee balaa ngi eggu mbuur la Malicounda nekk kër may safay mm-hmm. Malicounda moo dem ba ma nga taxaloo ji ak Sindia ca toolu Babacar Ngom ba nekk taaxum ah. diggante taaxum ak kibit foofu la ñetti commune dajaloo wala ñeent commune Sandiara Njagañaaw bi joom ay dëkk taaxum ak Malicounda boo gisee coow li amoon ci ndeng leer ba jomay doon ci wax loolu la cest à suuf si Babacar Ngom di bay du suufu njaga ñaaw dañ koo daggal benn espace boo xam ne commune Sindia bi mu koy dagg dafa laal suufu Malicounda laal suufu njaga ñaaw comprendre nga baax li ma lay wax mhm. léegi Babacar Ngom bi muy ut ay këyit moom dafa ut këyitu espace bi mu am loolu moo tax ba ñuy daje Mbour Aly Ngouille Ndiaye ma ni leen affaire bi Ganda la meeru Ndiaga ñaaw na wax ak meeru Sindia ni ko li ci li commune Sindia moomul delloo leen ma ko coow li jeex. Mhm. et pourtant Aly Ngouille Ndiaye loolu la def dafa ñëw nii leen fan la commune yi yem ñu ni ko commune Sindia fii la yem ak commune Malicounda ak commune Ndiaga ñaaw mu def benn arrêté ni Babacar Ngom bàyyil lii lii bul ko bay bàyyi ko fi ba léegi ma nga fa kenn laalu ba léegi mu ngi fa kenn laalu ko ci suuf yooyu ñuy joxewaat Sindia joxaat na ñeneen yeneen yeneen yeneen agro suuf boo xamante ni bii dafa laalaale suuf Malicounda duñ ma bàyyi ma fen Maguette Sène dafa woo Thierno Diagne interpellé ko ni ko foofu bàyyi ko moomoo leen ko suñu suuf la ñu dem yóbbu fa ay ay spécialistes ñu xool xam ne lii suufu Malicounda la Thierno Diagne l'avait fait ak suufu Popenguine mhm. indi woon na coow. Mhm. ci boobu laa doon attaqué Thierno Diagne ak maire Morolan ba maire Morolan porté ma plainte ñetti at may dem tribunal yéege ko wàcc man ko booy lijjanti maire ba mën a lijjanti fii senegal bay ban barajee baykat yi te Mansour Diop du dal ci sa kaw ko xanaa ma bañ a dund fii ak maa ngi dund yàlla sàkkul fii benn maire bu yeboo nga dem laaxee kuur da laaxee billaahi boo ban barajee baykat yi maa ngi ci sa caaya je l'avais dit au maire waxoon naa ko maire Nguéniène man man j'ai pas besoin de causer avec toi c'est-à-dire soxlawuma di discuter ak yow parce que man xamna ce qui se passe c'est-à-dire xam naa suuf si ni ñu koy joxee xam ni ci war quand je parle man duma ci laaj explication moo promoteur bi tudd tudd tudd ki tudd euh, balle Dramé amna ñuy commentaire diko tag ni ku bax la man leen yoyu yooyu yéen da ngeen di jugement de valeur ngeen di wax man xaw ma ko pour tagg ku baax la wala ku bon la yéen jugement de valeur ngeen di def man defuma loolu man li may def mooy njamaan laa ni aw askan wuy souffrir la mat na léegi fanweeri at ba mu fa commencé dem man ak léegi di doxe croisement pël di dem njamaan xam dëkk yi ne foofu xam fi nekk forêt xam fu nekk gajj xam fu nekk tam xam fu nekk tool xam fi rof yam xam fi suuf maliku ndeyam ak suufu ngéeñeen mu nekk askan wi continuer de souffrir ñu lotir ba ci seen ginnaaw ëtt njamaan da ngay génn si ginnaaw kër doo am foo dox parce que fi ngay dox nañ ko def ko ay kër pour jaay ko ñu war bay ñu ñëw nangu seen suuf beneen waaye ñëw ñu jox ko suuf muy exagéré ni léegi suuf si njabootu Mansour moomoon moom la négocier ñu jox ko ko nañu ko ko nag moom du ko wax mm. d'accord mais ak lu mën di xew keuyit bu mu mën di doon war nañ ko ba xam yow bi nan nga ko am superficie boo xam ne du ko joxe état moo koy joxe bàyyi. Mm-hmm. ba délibération ko ni daanu nga bi nga délibération nga daanu dina am délibération certes dina am lu préfet certes mm-hmm. mais am superficie boo xam bàyyi jaar jaaru fa mën maa défier mm-hmm. et puis ni mu non la yombé du yombee noonu de muy descos muy gendarmerie bépp menace bu jëmati ci population dootul jàll tol bobu ñu fa yàq noonu ndax dong dañu wo dañu convoquer waji joval Joal ni ko boo fa dématé ñu tejj la yoy da fay dakk dinañu bayyi dinañu léñu commencer di dénoncer les commandants yi ñu affecté ci dëkk yooyu ñuy intimider population yi parce que loolu du seen wareef dañu war ouf population waru ñu intimider population wala napp population te yenn préfet yi nañuy accessible. jaaduwul jaaduwul yooyu nag Malicounda da cee nekk victime xale yi Pastef yi li ñuy xeex wareef la. Mm-hmm. nañ def audit ci suufu Malicounda def audit ci suufu Sindia def audit ci suufu sali def audit ci suufu Mbour. def mm-hmm. audit ci suufu Sandiara def audit ci suufu Ndiaganiao. Mm-hmm. commune boobu yëpp dañu war def seen ay audit pour xam seen ay suuf nan la tëddee. voilà tey élagement suuf promoteur yi est-ce que tamit duñu xoolaat seen gestion ci wàllum suuf suuf si parce que ñoom groupement nañ ci loolu lu ñu am ci ab bërëb rek ñu ngi yóotuwaat leneen ci beneen bërëb. ñan si. promoteur yi. non promoteur xam nga xam nga quand bu ñu waxee promoteur. Hmm. loolu appellation la rek. bien sûr mooy li nga xam ne euh, promoteur immobilier am na promoteur agronome am na surtout agronomie nak mom moo tax wax. ñoom ñëpp a parce que ñoom ñëpp a xam nga xam nga agro business c'est-à-dire Sénégal dañu complexe ci appellation ay non dañu dañu am complexe non ok lan mooy lan mooy lan mooy promoteur agronome qu'est-ce que ça veut dire. ñun ñëpp ay promoteur agronome lañ ñun bu ñu juddoo ba léegi xaalisu mbay la ñuy dundee lu ñu am ci mbay lañu ko amee dañuy bay. Mhm. bay Moussa da ngay ñëw jël sa benn.

ñun la Moussa Thiam yow da ngay féete côté terrassement yow yaay gagné bépp marché boo xam ne terrassement la Moussa Thiam amul machine amul tool amul këyit may defal këyit yépp au nom de Moussa Thiam Moussa Thiam ñëw def terrassement Khalifa Fall yow géomètre nga lépp luy marché lotissement yaa koy gagné Khalifa amul suuf amul dara xam-xamam dong la am. mun mhm. am bu yenn saa yi du nekk géomètre agréé. Mhm. ñëw def lotissement am. Mhm. maintenant mami yow yaa am agence yaay jaay yaay courtier bi.

parina n'y a pas ñuy mais kan dans le centre commercial ba lan mo lay jotloo ci la mm-hmm. la vision vision mm-hmm. vision créativité la mm-hmm. suñu maire nous nous le le de telle sorte que foog le développement de am ci lu souffle qu'est ce la ñu ni développement dëkk boo dem coow laa nga fa Malika coow laa nga fa. Mhm. loo coow laa nga fa. Kër Moussa coow laa nga fa xoolal meeru Kër Moussa mu def ni mu def bëkk dem ci dëkk yooyu ay suun jëm ay AIBD. Mhm. dama dem ba dugg ci suufu si Dias te loo ci man maa ngi koy wax fii fan yee paase tey dëkk bi ñuy wax Kirène képp ku yeewoo Kirène mënoon ngaa bañ a ndóol mënoon ngaa bañ a ñàkk. Mhm. képp ku yeewoo Kirène mënoon nañu ko transformer une ville virtuelle Bo xam ni ku nekk dafay bëgg a dem découvrir Kirène ndoxum Kirène bi ngeen di naan tout de la bu tudd Kirène ci dëkk ba la installer installé usine ba fois fa defar Kirène des fois defar meew di des fois jus Presea di des fois yeneen ak Yenen. ba n'importe marque Kirène opérateur téléphonie mobile dëkk Kirène vous la jël tey état bi man te loolu dinaa ko porter dinaa continuer di fàttali gouvernement bi ni leen dëkk bii tudd kiren dafa am ay origine kiren bii jël turu kiren ndax ab naar bu fa installé benn usine buy defar ndox joxu ko autorisation mu jël turu dëkku jàmbur daf ko markam marque international loolu dafa fay dëkk ba non seulement ay RSE tabax fa ay école ak ay salle de classe ak ay ay dispensaire du loolu de mm-hmm. mais dafa war a fay marque dëkk ba parce que Kereen dëkku maami jàmbur la ay séeréer saafeen ñoo ko sanc ak ay pël dëkk fa muy nekk ay nit yu am ngor ay nit yu nangoo liggéey ñeneen ñoo fa installé fa seeni ay toolu seeni ay toolu haricot ciment du Sahel bi fu mu ne Kereen la ne c'est-à-dire Kereen li ko séqi ci ay industrie Baye Moussa mënoon naa transformer dëkk ba mais xam nga nu def mm-hmm. dañu ko sax faf léegi transformer pour ñu dëkk ci dëkk ba am kër yombatu leen. parce que étranger bëgg nañ fa am kër. ñëpp fa bëgg am kër kereen ndax tur bi léegi c'est-à-dire aw askan wu amul benn protection benn benn protection amuñu ko jas yow ku leen woon jas dina dem ba daaw ñu jàpp ay xale yi doon manifester ñu jàpp ay xale di leen yóbbu gendarmerie di leen tëj jas gi nga xamni ne fa lañu ñuy def AIBD ak li li leen Ablaye Wade digoon mm-hmm. jas gi nga xamni def nañu fi ben zone industrielle bo xamni équivalent su 50 hectares la ay camions ñu koy exploiter xaw zone économique xaw nan defoon nañ fi daw ay manifestations concernant ah. espace bi fa jël tollu ci 50 hectares. Mm-hmm. jas googu nga xamanteni bi chaque année cargo roppalaan wacc fa chaque jour cargo roppalaan naawe fa.

retraité na mat na léegi juróom-ñetti ba léegi ba léegi de. waaw ba léegi ah. ni moo nekk fonction parce que mooy defal indien yi li li neex indien yi. ok nu mu tuddati waa ji waaye fàttali leen ma sama mbokki internet fàttali le ma turu directeur bu kii. yaa alsan Diallo yaa alsan Diallo. alsan Diallo mooy directeur ISS ba mu retraité ak léegi ab mat na fukki at. te mi ngi en fonction ba léegi. ba léegi mu ngi fa. Eh am na benn xeer bu xonq bu ñuy tabaxee béton là. béton bi da doon ci buñu buñu exploiter phosphate ba tok ko ba lañ ko doon parce que mbalit la fa won mais dañu remarquer ni nekété dafa bax ci tabax béton bu bi mhm. béton bu bi ko ñi am carrière doon ay sénégalais doon ay entrepreneur yu dem di ko sollicité bu baax di ko tibb parce que mbalit la woon ñu ne koy jaay njëg gu yomb. maa ngi fàttali xeer bi tuddati xam naa am na fa sélex moom laay wax sélex laay wax dafa xaw a tuuti am tuuti lu lu xonq. Baye Moussa ak sénégalais fa nekk ñoo xamal indien yi ni leen xeer bii gën a bëgg jaaye leen ko li ñuy jaayee bato li ñuy jaayee béton bu ñuul bi.

sénégalais bi. Mm-hmm. ñaari semaine ci ginnaw tok nañu deux semaines yo fay liggéey ñëpp ken liggéeyu ci buntu ba lañuy ba jot ñu dem mm-hmm. sous forme de manifester sen de travail yu bon Ken faalewu leen. Mm-hmm. dem jëli ay journal lañ def ñu ko ken ñi ëpp ci ñu grève ingénieur lañ nekk Sénégal li exploiter phosphate Maroc te ñun ñoko ko mag ëpp ko opportunité ëpp koy avantage waaw silex la tuddu xex boobu. ñu ngi ñu ngi koy fatali. Mm-hmm. Ba yow khalifa c'est-à-dire mbon mbonte gi dajaloo yépp ci ñi exploiter ci région bu Thiès Motax man ma ne Birame Diop vraiment vraiment am nga liggéey. Mm-hmm. et puis am nga lo maîtriser nak parce que Thiès nga dëkk. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. xam nga cees ak Sindia ñaata carrière moo nekk Thiès ak Sindia ñaata mine moo fay tàkk par jour mine mine yooyu ñu taal ci carrière yi muy exploser ñaata mine ñaata carrière lañu fay exploiter xam na ko. boo génnee Taïba xam na ko zircon bi xam na ko donc côté boobu moom sant yàlla. Ngunjaan xam na ko. donc Birame Souleye Diop foog nañ ni balaa moo wax sax ci waxu pétrole bi nga xam bënnaguñu ko ak gaz bi ñu bënnagul moom déjà liy génn ci région bu Thiès. ci wàllu mine ay xeer. Baye Moussa loolu Sénégal mun na ci am loo xam ne kenn xamul nu mu toll sans compter ñaari usines ciment yi nekk Sénégal yépp Thiès la ñu nekk muy ciment de Sahel ak Dangote beneen bi ci des boobu moom sama combat personnel la. ciment di sayal ciment li mu yóbbu ci ay nit retraite ci weer bii kenn xamul lu mu toll mais loolu bon loolu méttiwul li gën a métti mooy est-ce que xam ngeen ni ciment di Sahel usine ba xam ngeen ñaata tonnes lay produit par jour amatuma chiffre bi exact mais daawoon naa ko waxtaan yi ma nekkee seen TV. Mm-hmm. Baye Moussa ba léegi nii ciment du Sahel BTP la nekk ba léegi duggul miin loolu moom man je nu ma mën a def ba jot ko moom loolu dina am lan ciment de parce que BTP moo gën a woyof ci taxes yi nga war fay. gi BTP industrie produire ay milliers de tonnes ciment par jour di sa secteur BTP. Eh ba léegi ciment de sel dugul mine ndax wayefal taxi yi tegu ci kawam loolu Ousmane Sonko na ko yëg de loolu moom di woo dama ko fàtte woon bu di woo ji bi ngay njaay 14000 tonnes voilà Pa Moussa Wad, wax na dëgg nii la nii la ñëwee 14000 tonnes les produits par jour. Mhm. parce que dafa amone dañu yokkaatoon yeneen four yeneen ñaari four yu ñu yokkaat. 14000 hmm. tonnes. par jour ciment lay lay produit par jour ba nopp ba léegi ñu BTP ciment de Sahel. ba léegi mu ngi BTP. ciment gën a man bu may noppi dinaa woo képp ku ma mën a wopp am accès ci Ousmane Sonko. xaw ma Jibi Gueye lay doon. xaw ma directeur cabinet bi lay doon. xaw ma El Hadj Malick Ndiaye ministre transport lay woo mais xibaar bi moom tey Ousmane Sonko na si jot pour tey. ciment de Sahel mënut a nekk BTP bañ a fay taxi yu normal moo tax duggul miin ba noppi nguur gi fi nekkoon jàppandalal ko ko. naar bi foog ni moom poche ma ko may lépp. foog ni moom poosam moo koy may lépp. Mhm. man moom benn jour la wax ci ñoom ñu jéem maa woo kama woo dégg na la mako wax. kama woo man dégg na la mako wax man duma man man duma ma lekk yàpp waa Sénégal man. Mm. ay yuhibbu ahadukum an yakula lahma axiihi maytan man duma ma lekk yàpp waa Sénégal man def sama poos man nopi ci mu coono ak wa Sénégal duma ko def. dégg na baax la mako wax dina continuer di dénoncer ciment de Sahel ba Samba di ca Demba seen poos lañu ñu yoroon ñu leen neex la dundé dundee Sénégal di produit 14000 tonnes ba nopi nekk BTP loolu fan la am par jour par jour loolu fan la am. Mhm. loolu fan la am ba nopi mhm. ñi camion yi eppone liggéey di de Sahel éliminé nañu pratiquement si camions sont boppoo les ay ciment. Eh contrat camions camions si contrat nak un moom waxé contrat mi ngi signé da ngay yému ci CDD. CDD ak CDI vous la sanctionné mise en jour 3 jours donc 3 jours xam buñu la mise en jour dañu war calculer xol 30 jours yi nuñ koy daggee ci walu comptabilité ñom xam nañu ko xam nga ñoom nu ñuy def amul négociation amul ñetti fan amul benn fan le fait nga am sanction rek yow mi am CDD on te coupe 35000 yow mi am CDI on te coupe 50000. kaay mo wax la boy liggéey journalier ciment du sayel 3500 lañ lay fay par jour soo sim di la fay 5000 xanaa mo gën xanaa mo gën. boy liggey goudi bu dee kaaru nga nek si de de li ñaata lañ lay fay xuma 6000 xaw ma 5500. soo ko sim au moins na la fay 9000 si Dangote la même chose. mais Dangote limi limi def ci RSE dem di waxtan ak population yi. Ma bëggoon ciment de Sahel def ko Sococim lu ko tax a nekk ba léegi donte woon ñu ngi jàmbat mais au moins am na lu mu représenté parce que kilifa yi jiite Sococim am na ci ñoo xam biir Tëngéej seen bopp la ñu fa la ñu mise en pied waaw kay bu ñu mise en pied wee loolu lañ lay dagg. CD CDI. 35000 non non CDD CDI 50000 francs donte woon ay ñaari fan ay ñetti fan la loolu fan la am. te ñu ëpp ci ñoom xoolal billetage leen di fay kiy fay kiy fay billetage bi sax xam naa ko su ma waxee ñoom benn fan la lendemain ñu jël benn équipe RTS wala APS yóbbu fa di jéem a démentir mën leen doole bokkul. man bu ma jubloo ci retet leen fu ma toll maa ngi def vidéo di leen retet. soo yi man sama xeex xeexu njaago lay doon du dakk du jeex ciment di sayal li ñu yàq ci tund woowu golo yàqu ko ci àll baay Moussa.